wax waxin ak nettali dafa am solo dinañ ci bëgg mbir dinañ ci bañ mbir dinañ ci sawar ci mbir dinañ ci ragal mbir donc journaliste yi bépp politique de développement bu ñuy def moo xam ci wàllu migration la moo xam ci développement la moo xam ci leneen dañu war a am cër bu rëy bu ñu leen jox ndax ñoom ñooy jottali ki xamul ñooy jottali ku déggul ñooy ñemeloo ku ragal mais ñooy ragalloo ku amoon fit te jëmul fu baax donc ñoom seen expression qu'elle soit euh, radiophonique wala expression télévision ci gannaaw caméra wala expression écrite ndax seen xereñaayu baaraam yi wala sax ñuy yóbbu ci réseau sociaux yi ñooñu dañu war a am xel mu dal d'abord bu ñu liggéeyee mais li ñuy wax ak kaddu yi ñuy yëkkati ak vocabulaire bi ñuy utiliser li ñu war a sàmm la moo tax communication dafa am doole ci àdduna bi que nit ñi xam nañu la première chose mooy que journalistes yi seen bopp xam nañu thématique yi parce que bi ñu leen joxee thème global bi 43 candidats yi ñu jot yëpp candidature yi benn bu nekk valable woon na pour ñu mën ko euh, primer boo seetee nettu ñu joxe benn excédé ci quinze benn rek la ñu am 16 parce que nit ñi dañu dañu xereñ si liñ doon def mais dañoo xam euh, lan mooy migration xam lan lay wàññi bien entendu mais tamit dañu am jël jotu fekki ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain xam ni lépp lu ñu wax dafa wér dafa am seede ñu fexe ba méngale seeni wax parce que vocabulaire bi su maasewulee méngale ñu ay wax du ñu mën a comprendre du ñu mën a déggante journaliste tamit góorgóorlu nañu ba waxee noonu mais fexe nañu tamit ba fépp fu ñu waxee jafe-jafe wax nañu fa bunt solution ba pare ñemeloo nañu nit ñi ñu ñeme migration parce que tukki dafa jaar si ku ko bëgg def mais ñemeloo nañu nit ki nag risque lan la risque di paye wante comme ni ko madame euh, Valéria Fares ki waxee léegi du ñu xeex contre migrant wala migration dañuy xeex contre cause migration lan moo tax nit di jóg di dem loolu ngay xeex loolu nag migrant euh, kii journaliste bi kenn ëpp ko ci cër te journaliste yi ñu dajal yëpp ñoom ñëpp kenn ku nekk soo yëkkatee reportage am leeral na ko ci naañ seen jumtukaayu liggéey moo xam seen bindukaay la moo xam seen caméra la muy seen bët moo xam seen làmmiñ la parce que dañuy wax ñu xam ne ñu ngi atteindre nit ki directement nañu xam ne ñoom mën nañu jubal ay dund mais mën nañu réeral tamit nit que euh, kii responsabilité bu ñu amee dafa kowe kon maa ngi leen di ñaan déjà ñu moytu bu baax di wax yu extraordinaire juste pour wax ko mais bu wax extraordinaire waree yar aussi ñu odd wax bi ba yar parce que dañu am responsabilité euh, di leen ñaanal nag ñu ñu gën a jàpp métier bi gën ko fonk parce que amul lu gën a jihaad la en fait jamono jii ñu toll ku mën a wax ak nit mu dégg la yaa ngi jihaad nag journaliste bu nekk xam ne moom dañ koy yebal ci doomu aadama yi mu jël responsabilité boobu def ko ci xelam.